entretien bu xam ne ñëpp dinañ ci jëlee dara. et puis mhm. ñëpp dinañu voilà le sujet bu ñu mënta aborder tamit daal ñu jëm ko aborder. avec le mhm. plus grand professionnalisme. D'accord. accord euh, déjà li ma lay am envie njëkk laaj mooy euh, naka nga dundee euh, vacances wala Covid 19 vie Sénégal naka nga ko dundé en tant que acteur sportif. Covid 19 vie, Covid 19 bi du neex a wax. parce que mhm. li ci li ci am ñëpp xam ko. Euh, parce que dama ci ne c'est vrai que wax ci sax de mois parce que je uh-huh. uh-huh. mais malheureusement c'est comme bon effet boomerang tout le temps. Uh-huh. parce que Pape je pense que ma

métti. mu mhm. xaw métti mais lan nga yëg bi nga ko bi nga ko yëgee. non dañoo njëkk wax lu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mhm. loolu rek ngay wax. Mhm. Euh, ba mu amee kon na nga koy jëlee. après bon wala ci yàlla may la am aussi iman. mu amee iman yu bari da koy mën dëkku. delloo ko ko. waaw delloo ko ko parce que bu nu bu nu bu nu seetul yàlla dañuy dañuy mën nañu ñàkk euh, suñu sago. dëgg la. te loolu ci yàlla musal. Uh-huh. parce que boo dee jullit. Uh-huh. ñu yar la ci diine. Uh-huh. lu ñëw rek da nga koy delloo sa borom. mais sa relation ak Pape Diouf mën nga ci ñëwaat pour internet yi seetaan. oui mais kooku kooku yëpp xam nañ ko li bi juddu dem sax xam na sama relation Pape dafa nekkoon suma suma xarit. suma mag. ba pare mu jël ma comme ndongoom. may jàng métier bi di ma gis. fi moom dafa xam naa dafa ma gis rek bëggal ma. bëggal la boppam. bëggal ma boppam et puis bi ñu demee benn moom mu xool na. ne ma yow daal je crois uh-huh. ma nekkoon. Uh-huh. indi uh-huh. indi ma. ci wetam. ba pare may ma carte blanche. di ma ma defee ni mu dama duni. donc loolu daal la ba. yàlla def vraiment waaw bu yàlla def lii quoi. wax sax day xaw a diis. day xaw a diis day xaw a diis man wala j'aime pas di ko recensé mais daal fa nga koy ñaanal yàlla bu baax a baax. parce que vraiment. Euh, seede yi ñu ko seedeel. keroog ñu génn àdduna. ak ci àdduna bi loolu xam naa doy na yaakaar man de am naa ci yaakaar bu baax ne uh-huh. suñu borom dana ko jégal te du ko àddina fi kawe kawe parce que liggéey na fi loo xam ne vraiment uh-huh. ba léegi nit ñaa ngi uh-huh. waxtaane man chaque ajjuma damay dem euh, cimetière yi cimetière yi mais des fois damay ñëw damay fekk ay ñi ñoo xam ne xamuñu ko di ko ñaanal xamuñu ko donc man damay ñëw comme un anonyme bu ma ñëwee taxaw seet sama mbokk ziar sama mbokk dem ci baamanam ziar ko ñaanal ko uh-huh. mais bi ma koy def uh-huh. dama ciy fekk toujours ay jàmbur yoo xam ne xaw ma uh-huh. waaw ñenn ñi nag dañ ma xàmmee ci média di ma di ma jaale di ma wax li tax ñu fa nekk mais xamuñu ko mosuñu ko gis mais euh, seen xol moo voilà xamul tax dañuy dem di ko ñaanal et ça pour man c'est un signe ay jàmbur du jógee fu ne Ça est demain pap bu la nexé amul bëss bo mhm. chaque jour nga fekk fa nit ay yo xamné xam nga mhm. ci ma eh, nit ki sa jëf rek mo lay lay ba fu mhm. nit mais il bu a ma jot message déjà xam dañ bu bu bu aéroport ko parce qu'ils ils ont un devoir de venir servir sur temps. tombe Ils sax ñu bari dañu mérité nañu rendre ko hommage ici au Sénégal waaw mais xam nga circonstances yi ni mu demee. ni mu demee parce que bu dul woon circonstances yi. génn mhm. àdduna Pape Diouf. Mhm. xam nga loolu. Mhm. kooku ma dëj bu mag lay nekk. waaye nag xam nga moom nag ndeysaan. yàlla daf ko may Pape si léppam ci discrétion la ko amee. ci moom Pape doon na ko dégg jàpp. parce que tolloon na dayoo goo xam ne. kilifa la. waay tey mais xoolal mbir yàlla rek léppam ci discrétion. ci discrétion Pape li muy def bu dul woon sax président Marseille bi ñu bari xamuñu ko. Tout pourtant il est parti dans la discrétion. en fait il est parti euh, comme il a pratiquement vécu dans la discrétion. il est parti moment sur le Sénégal soxla. waaw parce que je pense que le Sénégal l'Afrique na Afrique soxla mhm. parce que les années passées, il y a eu ci combat. un mhm. combat quand je dis combat ce n'était pas un combat pour lui, c'était un combat pour euh, restaurer euh, la dignité. Euh, mhm. africaine. Mhm. dans le jeu des noirs tout simplement. Qu'est-ce mhm. na mbiru yàlla rek. dafa génn àdduna trop d'un seul coup y a eu l'histoire de George Floyd. mu indi a lëmbale àdduna bi yëpp. ci affaire cause des noirs. alors que moom avant boobu mu ngi moo doon mené combat parce que nee na xëy na man quand il se définissait comme une anomalie. Euh, naka la waxee euh, une anomalie heureuse. alors ah, le fait que Pape di traité comme une anomalie loolu moo lay waroon njëkk pas normal. donc tu vois donc euh, mu nekkoon loo xam ne tey demoon na benn moment ci àdduna nee na ma sama rek man moment bi ma toll amatuma lu may prouvé si lépp lu may def. Uh-huh. maintenant ma ne combat boo xam il faut uh-huh. que les choses changent. Uh-huh. commencer ci attitude ni ñuy xoolee. la représentativité des des qui sont des gens de couleur dans les instances. je je aujourd'hui je vais je vais faire une conférence peut-être que ñu bari xamuñu ko. moo la daal ne man ak ñaar nit ñoo est-ce que xam nga ne Pape Diouf avant muy gaañu stade René moo nekk daf ko contacté mo nek président. mu nek président mang koy wax tay mhm. ñu bari xamuñu ko. au stade René bi ñu jël ci président bi ñu jël hmm bi Olivier Olivier Létard. Mhm. seen premier xé ci Pape Diouf la nekkoon. parce que man xam nañ ne comme j'étais mhm. proche de lui. man ma def link bi. ok man m'a def link bi ba gars yi commencé di wax. mais grave il était un peu réticent. parce que pour lui il avait il était dans un autre combat. -hmm donc après yàlla def liggéey. mais sinon bokkoon na ci short list yoo xam ne mënoon nañ jël comme mm-hmm. présidence Stade Rennais. Mm-hmm. loolu ñu bëri xamuñu ko. Mm, loolu moom je crois que révélation la. révélation te maa ngi koy doon wax te. Mm-hmm. parce que euh, wax ci soriwul woon. te ba ku ñu koy contacter daf leen ne carrément dinaa réfléchir. moment bi la la première le premier contact ak ah, le moment où la pandémie s'est euh, déclarée et le décès pas, il s'est pas passé 20 jours malheureusement. et puis voilà mais bon il avait dit. Laissez-moi réfléchir parce que Pape était dans une autre dimension. Aujourd'hui, il avait une autre, une autre bataille qu'il était en train de mener, quoi, mhm. malheureusement. Il y a le défi. parce qu'il était dans une autre qui. Parce que il 68 ans, il a travaillé pendant ñaata année di du di il a besoin de reposer de se donner. ça mhm. il se yoroon léegi agenda boppam quoi. absolument ah, absolument def mhm. en tout cas muy nekk vraiment dañ rendre hommage Pape Diouf si pour def pour sport sénégalais nekk fierté africaine. Mhm, maintenant bu ñu ñëwee ci li nga xam euh, mercato parce que ñu ngi ci période mercato à Covid 19. mercato à Covid 19 naka la ko agent de joueurs yi nous avons découvert, nous avons découvert découvrir ñu ngi découvrir ñun mais euh, dañuy avons adapté dañuy euh, comme <laughs> toutes les grandes entreprises bon c'est daay dès le début tout le monde se met au euh, télétravail. donc on peut l'assimiler à un mhm. peu le télétravail. Mhm. donc maintenant deseen ak xarala yu bees yi technologie léegi mun nga toog mhm. di wax aujourd'hui les négociations nous avons koy entre club yi. agent yi ak joueur bi ñu ngi donc, on a un système de Zoom, mhm. téléphone, euh, conférence call, contact téléphonique, mhm. euh, mail, tout ça. Maintenant, même les contrats, vous savez qu'on peut les signer par mail. Mhm. Donc, euh, rien ne nous empêche de les liguer. La seule différence, c'est que les dirigeants le dirigeant, nous avons convaincre que nous téléphone. Quoi. Parce que des fois, qui ont un téléphone. Uh-huh. dafa bët day rus bët na am ci biir waxtaan ngeen yi xëccoo xëccoo mais waleen uh-huh. jànkoor day gën a yombalal yëf yi uh-huh. mais oh, dañuy adapté wu dañu on s'adapte et puis bon euh, j'espère simplement que du am trop de dégâts si dina am quelques euh, dégâts parce que euh, club yi léegi ils ont des difficultés financières financières oui. vous avez vu gars yi dañ doon demander club yi ñu baisser seen salaires, les joueurs ñu baisser seen salaire les sponsors ñu ci bëri am na ñu ñëwoon ñoo xam dañuy retiré parce que affaire yi doxul donc en fait un engrenage là, toutes les il n'y a pas ci petit pâté uh-huh. donc forcément ñun agents par exemple nous avons fait une commission depuis uh-huh. presque depuis janvier fay uh-huh. depuis donc c'est c'est c'est malheureusement pas un cas spécifique au football donc nous a adapté vous et puis bon, en plus, euh, comme ils ont décalé le mercato actuellement, donc euh, ce qui fait que d'ailleurs, au lieu de fin août, début septembre, mm -hmm. Rennes le 5 octobre. Donc en fait, temps bi ñuy euh, temps parenthèse bi am nii. Mhm. dañ un peu après. Mhm. Sauf que il y a des clubs, par exemple, en France, reprennent nous, alors que y ñi ñu ngi door a des vacances. Leur mhm. décalage vous rek parce que club anglais par exemple boo leen gisee commencé guñu. te ñoom ñooy baromètre marché bi. club allemand ñu ngi door qui y a des contacts mais ba léegi dara amagul donc mhm. lépp dafa décalé wu rek quoi dafa dafa décalé wu mhm. donc moo tax looloo tax sax ma nekk ah, sinon mhm. période bi mooy fekk maa ngi yéeg di wàcc ci plein mercato waaw ah, oui mais bon là je pense que fii ak ay fan dinaa ñibbi liggéey nag absolument dénk suñu bopp yàlla rek donc suñu bopp yàlla et puis voilà justement si si si mercato boobu am na ci kenn si say joueurs koo xamante ni il s'appelle Habib Diallo gis nañu suñuy internautes dañuy intéressé wu trop ci mom mu nek attaquant sénégalais di def ay performances yu bax fan yi new yu dégg né amna ay club yu ko soxla pour recruter ko bu ci gëna a di euh, Tottenham. Mhm. di club anglais donc mu mu nek lo xamné en tout cas excité na suñu euh, les internautes en tout cas. Oui, parce que ñëpp xam Habib, euh, logiquement c'est sa dernière année bi passée. Mhm. donc c'était déjà acté déjà mois de janvier comme li mu leen wax. Le euh, dernier jour mercato y a ils Londres parce que euh, ils ont tenu ko Bougon mhm. parce que un jour qui a dafa blessé mhm. et puis il leur fallait un attaquant dans l'urgence Mourinho bon il a passé Habib. parce qu'il mhm. a un profil bi malheureusement moment où ils étaient prêts à mettre le prix. le prix était très intéressant et le président de match était peut accepter. Mhm. sauf que lui aussi il a ci une position de xam ne. Il mhm. ngi jouer pour bañ a daa wàcce. nga sa meilleure arme offensive nga jaay mhm. il avait des comptes après à rendre à son club à ses supporters. et euh, à son comité directeur donc euh, c'est un peu. délicat pour mettre sa bàyyi Habib Diallo moment boobu nga xam yaa ngi lutter pour bañ a wàcc. Mm-hmm. Mm-hmm. surtout quand tu yaa ngi woon si année de remontée. Mm-hmm. donc le président a dit bëgg naa ko jaay su waa Tottenham nangu. mën nañ transaction ma jaay ko ko léegi. mais daf ma koy bàyyi six mois yi ma terminer saison bi. saison bi assuré ko bu dem. donc bon ce que Tottenham moo ñoom bu ko bëggee moom c' effectivement dans l' donc loolu tax ba léegi donc euh, gis naa ne gars yaa ngi waxaat parce que xëy na kii man man ba léegi waxuma de. Mhm. waaw xam naa ne gars teg nañ ko bët. Mhm. mais affaire bu mercato moom kenn xamu ko. tant que mhm. parce que championnat anglais tant que jeexul. li ci des yëpp ay rumeur la. pour le moment xam naa ne daal bokk na ci seen joueurs yoo xam ne ñu ngi seen sorte liste mais après. Euh, les choses sûr qu'actuellement mon mi ngi euh, ah non mon ngi seen viseur après. Mhm. Euh, c'est le mercato il mooy décidé quoi. Mhm. mais effectivement bon donc y' a pas que il y' a pas que. Tottenham Tottenham. il y' a des beaucoup de clubs allemands aussi qui ils ont lay ñu ngi xaar. Mhm. donc y' a des clubs russes mais aussi qu'après il y' a beaucoup il y' a beaucoup Italie. mais bon on a on va voir et puis on fera le meilleur choix parce que fait que tu phase ascendante. pour faut que koy sóoraale tamit quoi. Uh-huh. mais Habib c'est un garçon qui a explosé. un peu uh-huh. dans le tard. mais uh-huh. euh, il est monté à son rythme. Ouais. parce que il a pris les escaliers. voilà donc la donc voilà et puis euh, on sent qu'il dégage aujourd'hui une maturité. qu'il dégage dans son jeu dans son attitude dans le terrain il a plus. C'est le gën a wóolu donc moment moi, pour c'est le grand moment en plus euh, pour me franchir palier boobu. keneen ku nekk ci phase ascendante Ismaël Assar et Watford gis il a eu des débuts difficiles. Mhm. mais actuellement gis nañu que performance mi vraiment mi ngi et que mi ngi euh, mi ngi adapté carrément ci club bi. parce que Ismaël euh, talent ken euh, umpul mhm. Ismaïla Ismaïla talent umpul kenn C'est c'est vrai que bi mi door il a eu du mal à digérer le changement radical. Mhm. parce que là tu arrives dans une autre dimension la première ligue c'est autre chose hein. Donc, euh, il y avait la barrière linguistique, il y avait le changement de vie, mhm. de tout, c'est un tout, c'est un mhm. tout. Mhm. Donc, il, fallait que nous avaler, enfin, adapter, il fallait l'adaptation de il fallait que nous digérer l'IGB, tout ça. Et puis après, quand il a eu ses repères, sa famille autour de lui, il ah. a commencé à prendre son envol. Ah. Et malheureusement, au moment où il commençait à vraiment prendre son envol, il y a eu cette histoire de pandémie. Parce que tu as eu le corona bi Il s'est uh-huh. lancé bi mu nekkoon. Uh-huh. xëy des de wax uh-huh. moment bi ñuy mais bon comme yow yàllaay dogal. en tout cas il s'est bien intégré aujourd'hui c'est vrai que euh, Watford n'est pas au mieux ils sont encore euh, maîtres de leur destin. mais on ne sait jamais ce qui peut se passer mais je pense que si Watford se maintient. Euh, pour la première année, je pense que c'est tout bénéfice pour lui. Parce qu'il uh-huh. va que l'année prochaine, je pense qu'il va confirmer. Uh-huh. Après, si Watford descend, ça, ouvre les portes à tous les. Ouais, ouais. Mais la Maïnian, Watford maintenir ou enchaîner deuxième saison. Mm -hmm. Et pour moi, nous enchaîner deuxième saison, l'année prochaine Watford en première ligue. On peut, euh, on peut mener un ah non, le club mais. Mhm. leneen la ñuy wax en fin de saison mhm. incha allah. Mhm. beneen aspect moom mooy aspect familial bi rek euh, xam naa ne dem nga seeti papaam parce que amoon ay wax yu sew yu ci jotoon am ba mu amoon lu jotoon génn ci presse bi et que léegi ça va il a compris waxtaan nga ak moom. non xam nga mooy li ma la wax rek Sénégal dafa dañ nekk ci dëkk bu métti quoi. ngay jég say rek nga nit jógee fa fa la ne moom la. comme dirait l'autre

Absolument. Mais on n'avait pas l'occasion. Parce que peut-être qu'il y a arrangé certaines personnes mhm. que l'on Diviser pour mieux régner. Mais, enfin, je ne dirais pas diviser, on diviser quoi, on qui Man, man, man, bon, diviser. Man, Ismaël Assar, je sais ce apporté. Je mhm. sais C'est un mhm. garçon qui a beaucoup de respect pour moi. Absolument. Ismaël Assar, je vais vous dire C'est un de mes premiers jours qui a commencé à m'appeler papa. Parce que je ne sais pas si Donc, nous, nous, je suis top, je suis Mais moi, je ne sais pas si je suis Seydi ou Tcherno. mais papa la booy vraiment mu jox ma cër boobu. Mhm. jabaram pareil. Mhm. yaayam pareil. Mhm. donc toute la famille sauf que y a des gens moom laa wax nii rek. des intérêts inavoués. des fois am ne dañuy ñëw di wax lu leen neex. mais euh, grand bi ba mu toogee moom. mais grand bi xam na ne man li ma koy wax dëgg la. man mënuma man mënuma liggéeyee ak joueur. di di di di jubóog waa këram. parce que ñoo ma a xam. amul logique. man euh, dama koy wax souvent mooy wax ñu man dama gëm kilifa. Mhm. sa sa mag nu mu tamit da nga koy sa kilifa boo ko ëppee doole tamit. Mhm. donc euh, mënuma xalaat une seule fois may liggéey benn jour di xaajaloo papaam wala mhm. yaayam. non non non loolu du ma du ma arrangé parce que xaw ma loolu. donc à un moment donné comme je dis dëgg la kay mujjee. man grand bi ñu toogee xam na ne man man man du ma du ma wax loo xam ne amul. mais comme je dis rek xëy na comprendre leen ni et puis peut-être de d'aucuns aussi on pensait que en essayant de créer ce trouble là entre lui et moi.

bu dee liggéey agent rek uh-huh. waaw ku ma ko ku ma ko ci jàngal kenn ma ko jàngal su ma ko uh-huh. waxee daf nit ñi yaakaar ne xëy na dama kii uh-huh. mais gisuma lan ban gisuma benn agent boo xam ne naa ne ma gën a xam sama liggéey xam naa sama liggéey donc dama ci wóolu sama bopp parce que dama professionnel am la du ma fi nekk di dirante ba kenn mais li may def dama ko mën xam ko xëy na am na ñu may déranger am na ñu muy neex parce que man du ma du ma fen joueur ma kii parce que moment bi ma toll aujourd'hui à mon âge am na loo xam ne jombal naa ko dama am ay doom ñu mag am na loo xam ne du ma ko def. Uh-huh. joueur comme bu beneen bu rek. la uh-huh. uh-huh. a joueur bëgg a joueur yi dajale. te mënoo leen loolu parce que weesu naa loolu. donc joueur bu ñëw bu ma wóoree ne naa la apporter kii mais koy teg ci yoon. mais aujourd'hui malheureusement mooy li ma doon wax tout temps. da ngay jég saay rek yor benn joueur benn nijaay benn mag benn ñoo rek taxaw. Mhm. ne lii. indi commencé indi ay jafe-jafe. non ne la waaw man dama bëgg lii de man la mais yow yaay kan. kon ko jëlal nga yóbbu. Mhm. voilà. Mhm. mais doo ñëw fekk may liggéey. xam li may def. mu neex rek parce que simplement la sa mérite mooy sa sa mag la wala kii sa wala sa jamaat la. dégg nga papa mun na wax man sax. ma nangu ko. parce que bàyyi da koy jox cëru bàyyi. mais nag boo ñëwee fekk mooy sumay may liggéey. Hmm. ku ci nekk rek da nga koy jox cëram. Hmm. ku ci nekk dama la jox sa cër ci li ngay def. Hmm. donc ma sama métier dama ci may kenn ku may jox dictat wala ki may jox leçon. parce que dama ko mën yàgg ci. te nag mooy la dama damay ñaanal agent yi bu ci ne. ku ci agent. nga boo nga def ci durée bi ma ci def. yàlla jàppale la ci parce que boo ci ba ci yàlla jàppale moom c'est un métier qu'on peut dignement. gagner sa vie honnêtement. nga am ci sa sutura sa sutura sa bopp sutura sa njaboot. ak sa lépp tax ci yow. justement jeune agent yu bëri soy waxtaan ak ñom ñoom difficulté yi ñi am ak ak joueurs yi moy dañuy dañuy nek ak joueur diko jappalé et tout à un moment donné joueur bi da leen di tegee ne dem séti kenen est-ce que joueur bi da fay xol intérêt wala comme li nga wax légui famille bi daf ciy dugg ñom ñu gis sen bopp est-ce que du joueur yi aussi ñom ño xawa ingrat du ma ingrat fu nek am nañu bax fu ne am nañu ñu bon mhm. c'est vrai que dinaa dégg gaay yi léeg-léeg ñu sànni xeer yenn sportif ah oui, ils ne sont pas reconnaissants. C'est vrai qu'il y a des cas, il y a des cas terribles. Il y a des cas, euh, c'est vrai que c'est, humainement c'est difficile à accepter. Gis nañ fi nit. ànd ak joueur am jéeg saa rek dem du comprendre. mais yàlla loolu yàgg nañ ko gis fii. mais pour moi, man de je le dis sama baat ni poto Ou amee agent wala joueur bu ne man dama dama def na ko si noonu maa ngi wax si écran. na ñëw ne Thierno Seye def na ma lii wala lekk na sama lii amul. agent bu mu ci jàpp man mosuma jàppanteeg benn agent benn agent laa mhm. ma la comme Youssouf Al tam mooy dafa erreur mhm. parce dafa ma déglu moo ci problème crépin bi crépin bi mais bu mhm. ma déglu du ñu am benn yoon mais xam naa ndeysaan dafa xëroon ci crépin bañ a déglu mais man gisuma man affaire yu jaay doole yi du ma ko def am na loo xam ne ëpp naa ko honnêtement surtout moment bi nga xam ne je suis plus si re

ay ah, lan la affaire fox mhm. oui il faut que jeunesse se fasse. Mhm. mais à un moment donné lo nek xalé xalé taxul nga am ñàkk ambition. Mhm. Euh, nga Sadio nga bañ ko nga bëgg ko. dafa décider né damay nek footballeur professionnel je me donne les moyens de réussir je sais donner les moyens de réussir. ça je nga ne nii doo est-ce que ko dégg ci yéen dafa tak biiram. ne dinaa li moy li ma bëgg def li lay laaj donc damay jox sama. def sacrifice damay sacrifié wu Sadio dafa sacrifié xalem. Euh, mhm. di ci liggéey dans quelques années bu arrêté. Mhm. yalla may ko li mu koy may. mais tu as le temps de profiter. absolument mhm. Yaya Touré koo la ma Yaya ba ma koy xam boobu temps il était khalé la. Yaya dama ko doon tonne ko petit il faut manger ton argent mon grand frère. ma ko ma l'argent on va manger ça on essaie de gagner le maximum après on va vivre. mais quelle belle carrière. absolument mais il y a des cas comme ça malheureusement. je suis les jeunes joueurs je le faire c'est quoi.

mais waa ji ne la amul problème mille cinq dara par rapport mm. da la koy jox mm-hmm. léegi yow ngay dem di wër ci ville yi di tam woy na man li après loolu mooy indi yàq yi diggante joueur ak agent diggante famille ak famille yow bu nekkee jour bi ñorul mm-hmm. wala ku ku ku neex a day dem ne waa waa ji li ma waxtaan ba pare ñëw di la wax lu neex ba pare ñëw di la indil ay mm-hmm. ay kii di la woon ay affaire Sénégal mooy xale yi kay si si naan la waaye mais xale bi kii nga nekk waaye mais kii sama xarit la mais yooyu chaque jour man sama joueur ma leen di artu ci loolu

comme je dis xale jigéen ñi ngi fii. ou ut jëkkër footballeur. waay c'est wala copain footballeur. Mhm. donc ce qui fait que. ils mhm. lay indi li nga bëgg. Mhm. mais pourtant, temps li li li laalu ci ginnaaw xamoo donc am na joueurs yu ko comprendre. des garçons qui ont bien compris qui se fient. qui c'est pour ça que je dis toujours c'est je ne dis pas par les koy. pour moi Sadio Mané c'est le prototype du joueur professionnel. absolument dafa xam li mu bëgg a teg ko fi mu koy teg. liggéeyu tubaab moom c'est fi naan daan damay wax li bu wax parce que. li ki da nga koy li am. C'est dafa ba toll fi mu toll. ça mhm. yu may wax ak yeneen koy wax. c'est pour moi c'est l'exemple. l' mhm. Drogba c'est pareil. Mhm. DJ Drogba c'est est ce que da ko daan ci ay fait divers. pourtant il a explosé il a explosé à 24 ans. 24 ans il a explosé. au moment où les Djibril Cissé à 18 ans ont commencé di nekk ay star moom 24 ans il a explosé mais xoolal sa carrière. parce que dafa ñëw mën na ko lii lii mu déglu ma. non non Mais ne Messi Messi laa de. c' pas de baguette magique mais joueur de glo mhm. parce que dama y yu bari. Mhm. mais justement Didier Drogba nous on waxtaan ak yow un jour nga ne il fait partie des joueurs prof yi nga xam ne ailleurs, va a professionnel ci ñi yor ba plus reconnaissant. Mhm. ah ça oui reconnaissance oui eh, Didier Tolon na Ben moment comme je te dis amul ben toutes les grandes structures d'argent l'ont attaqué. de partout pour jëm ko man dem na ñoo xam ne dama wéy da ngay ñëw ñu liggéey ñu man leen ma Didier ne eh qui ba ma dul dara. mom la gis. Mhm. Il Il a dit, mhm. je, meurs, je vis ensemble et je meurs avec lui. C'est ma carrière, moi, j'ai commencé. Mhm. Il a joué jusqu'à 40 ans. il avait 17 ans. 17 ans, 40 ans. Mousso Deg, euh, scandale. pourtant, il a fait une belle carrière. Il a gagné beaucoup d'argent. Il a gagné beaucoup d'argent parce que c'était un des joueurs les mieux payés en football dans le monde. Il dit, tu il parlé, gagné, Mouy machi gagné. Mhm. là c'est ça. Mhm. parce que euh, euh, moi je dis toujours aux joueurs la carrière d'un footballeur on ne la réussit pas pendant. Mhm. parce que pendant quand tu joues tout le monde est gentil avec toi. tout le monde est beau toutes les portes s'ouvrent. mais à la fin de ta carrière quand tu vas te retrouver dans l'anonymat ou quand tu vas ce téléphone faut bi daan sonner tous les jours. que ça ça da nga yaakaar téléphone dafa panne. Mhm. gars yi fàtte nañ la football moo mel quand tu ci nekkee ne boo ci mhm. alors si tu n'es pas préparé à ça. Mhm. et que tu n'as pas préparé tes arrières tu te retrouves dans un du jour au lendemain dans l'anonymat total. mais booy xeef ngay dépression. c'est vrai booy xeef di am dépression. actuellement mi ngi pour euh, nekk président fédération ivoirienne de football tey jii nii euh, nga gisee poste aujourd'hui Euh, problème bi am Côte d'Ivoire mooy problème la mooy li ma la wax rek. bu mhm. doon euh, élection démocratique la. Mhm. xam ne c'est le peuple ivoirien kii woon. Mhm. di yow du def campagne. 80 pour cent des Ivoiriens vont le toog ñu indi ko chaise loolu am na. mais xam nga comme il un peu dans l'extérieur. waaw bokkuloon ci kii te bu ngi a la nekk Côte d'Ivoire pour xool. am na yoo xam maîtriser ko. dafa ñoo xam ne nag. Euh, affaire poste président fédération surtout si yenn dëkk yi. Mhm. fay nek poste politique. mais Didier fay ko xamné mhm. da fa toujours né man man may une seule personne une personnalité transversale au niveau de la Côte d'Ivoire fépp lay dugg. Mhm. aw ma gauche droite mo dem lay dugg aw ma parti. c'est man sama parti moy peuple ivoirien. te fofu la ko foofu la affaire yu nek parce que ou day jaayu politiquement. ou gaay yi duñ ko yombalal dara man néna ko keroog encore li lay wax nii. gis nga ay groupement yi di voté ñu naan ay cinq les cinq groupement la mhm. duñu la jox seen baat mhm. peut-être que fi nga afi ah, te dégg naa ne démb jox nañ ko keneen mhm. te ni nga ko joxee man xam naa ma koy wax léegi il paraît que ces ex ces ex non mais loolu yëpp mooy li ci ne xam naa li ci ne mais du loo xam ne dama koy xam naa parce que bu jotee rek DJ dina ko wax parce que ñëpp xam ne xam nga comprendre man ma nekk ci syndicat bi nekk vice président te gars yi bañ ma wotal xam nga loolu. mun logique wul waaw c'est pas logique. ah mm-hmm. man maay vice président AFI. Mm-hmm. il y a cinq membres qui votent. dont man. Mm-hmm. waaw. les quatre autres duñu ma voté. mais ñooñu lu tax di comme par hasard. ñu ngeen ma ko ne ko demal. ba pare rocceeku. waaw loo xam ne. kenn mënu ko wax <laughs> kenn mënu ko wax. <laughs> Ah. kenn mënu ko donc ah, moo tax ma ko écoute moi bien pour man dañ demee ba gis na affaire politique bi da cee beaucoup beaucoup bari ma ne ko bi di jéem a ma ko. sa position bi nga yoroon pour man téye ko ba si kanam dafa teel sax ñu lay faralee fii fële man loolu laa ko wax. Mm. parce que man ab benn mois dama ko ne carrément teggi tànk bàyyi mm. affaire bi jarul ko. Mm. te jaar tout l'avenir devant toi. Mm-hmm. actuellement da xoolal yow à cause de sa candidature. on n'a jamais autant parlé de la Fédération Ivoirienne de football. En mm -hmm. Il y avait élection, mon femme. Mm -hmm. Mais matin, midi, soir, on parle que de ça. Ouais. la télévision. Ça veut dire que c'est le personnage DJ mhm. qui fascine les gens. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit nous avons man nag ndeysaan comme mënuma ci wax parce que mhm. déjà avant même l'élection, yi mhm. xoolal benn article bu Jeune Afrique defoon ñu def la garde rapprochée de Drogba Jeune Afrique kan lañ xiir man la ñuy jiital ci photo xam nga photo l'éminence grise de Drogba <laughs> mais boobu temps il préparait à ce que opinion publique Côte d'Ivoire mhm. naan voilà yéen a ngi koy fal mais ba leen ko falee Sénégalais bi mooy mooy mm, diriger parce que li def Sénégalais bi koy def moo koy def loolu moo tax dès le début dama ko ne bàyyi rek ma bàyyi rek man li ma waxee naa la ko mais bàyyi mm. ma taxaw fële jëm ma ci nga à l'écart à l'écart de tout ça parce que c'est une histoire ivoirienne mm-hmm. c'est-à-dire que rek euh, mu mu dem présenter wu wala mu bañ a pour man aujourd'hui su doon man kese kese kese kese. Uh-huh. da leen abal da leen may euh, mu ngoog léegi dañuy jàllaat ci beneen aspect mooy euh, Sadio Mané ah parce que Sadio maane fan yi passé gis nañu sax ci presse bi ay ay déclaration comme quoi que yow yaa ko yóbbu ci yenn c'est vrai yaa nekkoon agent am depuis des années nga liggéey ak moom donc am foo ko jëlee am foo ko yóbbu mais gis nañu yenn internautes yi bu ñu gisee benn situation comme quoi que da ko. da nga da nga comme si da nga defar Sadio Mané est-ce que mun nga ñëwaat ci épisode boobu. loolu sax dafa loolu sax bu dee jullit sax. Mhm. dégg-déggin bi sax dafa ñaaw. Mhm. nit dana defar nit. Mhm. xa ñàkk yàlla weesu bi. boo ko liiree ku liir laa wax de waxuma les xam titrologue comme je les appelle. mais boo liiree. xam ne loolu li ñuy titre ak li ma xaajul woon. man dinaa taxaw la ma leen ne. je fait le choix je ko national beaucoup Salzbourg. je mhm. mu aux Jeux olympiques. Mhm. Sénégal Sénégalais ma ŋàññoon. Mhm. ñu bari bari ne sama ñu dégg. football talent pour le national football. il a fait saison avant il a fait matchs. Jeux olympiques Jeux olympiques personne ne le connaissait. Il est, il est Sadio Mané est apparu dernier match qualification mhm. à au contre Oman. Mhm. c'est le ñëw football. oui mais kenn xamu ko. Mhm. mu ñëw kaay qualifié mu dem Jeux Olympiques. Jeux Olympiques boobu lañ ko pas parce que a beaucoup. ko. Olympiques boobu mu def fa tournoi bu baax. ba mu il avait pas les conditions pour aller en Angleterre. amuloon sa amuloon gis. dara pour il pouvait pas justifier pour en Angleterre. sinon bu doon Angleterre bu a amoon condition West Ham après tournoi West Ham moo koy signalé. Sam Allardyce rek fa woon toog. Mhm. mooy xam nga nit ñi du ñu xam. Sam Allardyce rek fa won top bëggoon na ko. mais mhm. boobu il avait il n'avait pas les conditions pour jouer en Angleterre. Mhm. mais donc ils sont passés à autre bobu ta amna benen joueur bu def nga def Jeux Olympiques Moussa Konaté. Stoke City. West Ham bëggoon nañ ko. Red Bull bi Sadio Mané def bëggoon nañ ko. dirigeant ñoom Mbaye Diouf jaa fi fii di ma dégg ak euh, euh, yaa ji Konaté.

peut-être que c'est le meilleur choix que j'avais parce qu'à l'époque je Bayern Metz mhm. du ñëw foofu l'équipe nationale parce que mon équipe joueur national avec le nombre de joueurs qu'il y avait en équipe nationale pour Mounio jouer pour équipe nationale non mhm. après je sorti mu déggee euh, Jeux olympiques Metz na pas national mhm. kon moo wóor na ma à ñëw quand ah, on ko quand on quand on ko parce que national le football boobu mais Mounio enchaîné de Salzbourg 4 millions d'euros <laughs>

Uh-huh. non l'affaire la affaire y a def mu def comme ni mu ko def explosé en deux ans champ uh-huh. euh, championnat autrichien. Uh-huh. fan mu Southampton. mais avant Southampton c'est que les gens savent pas. Dortmund mi ngi savent mi ngi pour recruter a club la club il y a club mu na bu septembre année bu Il y a Southampton. été jël dootuma. dootuma lu leer laa lay wax ni mhm. mais yàlla def mu dem. ba mu ñëwee lan la def euh, Southampton. un mhm. le moyen de Premier League. Mhm. mu toj fu mu dem Liverpool. Liverpool moo ma naan la euh, plan de carrière da nga koy teg ci yoon. joueur bu nekk da nga xam caractériser ak une étape. progression. du ñëw pour def coup. moo tax ma ne carrément qu'on le veuille ou pas peut-être à ce moment précis su ma xeexuloon ak Metz. ma forcé mu jaay ko. ma yóbbu ko Salzbourg mu nekk club boo xam ne daal yaa permis de de s'épanouir mhm. que xëy na du ñu a réussite collective man moom ak euh, entraîneur ak Red Bull mhm. donc ça a une réussite collective mhm. ils l'ont vendu à Ils l'ont acheté à 4 millions, ils l'ont vendu à 15 millions. Donc ça a été une réussite de Salzbourg, ça a été une réussite de Sadio parce qu'il a été très bon, ça a mhm. été une réussite de Tierno parce que j'étais là à faire ce choix-là. C'est comme ça que je présente la chose. Mais mhm. à ma grande. Euh, vraiment beaucoup de regrets quand je vois le lendemain euh, titre. Euh, je ne contre le journal, quoi. chacun fait. Mm -hmm. veulent pour, euh, me mettre à la une. Oui, si je, ne suis pas là, il n'y a pas ça, m'en Mané. Oh. Mais quand tu sors effectivement une phrase dans le contexte où je l'ai dit, c'est sûr que ça change. Oh. À balancer que tu dis, les gens me font passer que oui, mais moi, je ne sais pas si je sais pas si je suis intéressé. Je ne sais pas. Humilité, c'est ce que Mais après, quand tu sors ce titre-là, forcément, ça heurte. Oh. Et je pense que sur ce point-là, les gens de record, ben, je le fais. Je dis ça à Bakary Neko c'est pas bien ce que vous avez fait. Uh-huh. man du yalla yàlla du ma yonent. Uh-huh. destin de la personne yalla bindé nako ba paré. Uh-huh. ñun do loolu la ñu donc sauf que tu as été décisif si si si si dossier bi. mais si si je ne suis pas là. mais c'est parce que à ce moment précis si je me bats pas à mettre le dernier jour du mercato. mais un jour peut-être ça Mané Bernard Tairé foofu faut le commencer parce que bi Bernard Tairé 4 millions. xalaatul woon le club dina def 4 millions le jour national. c'est une façon de fermer la porte. Mais gars mm. parce que gars c'est dans les Jeux olympiques non mais attends bien sûr. Mm. Salzbourg ñoom dañ ko bëgg Ralph daf ko mm-hmm. c'est et c'est Ralph Landry qui a dit je le mettons le cap mais le président de Red Bull ne voulait pas. Mm-hmm. Gérard Rouillet qui était le conseil ne voulait pas. il a mm-hmm. dit non on ne peut pas mettre euh, plus de 3 millions sur un joueur. coach lui, Ralph le manager boo ne jël voilà donc ça veut dire que a un talent ça. absolument et il a il a il a prouvé. donc aujourd'hui faire dire à quelqu'un lo xamné ne waxuma ko dafa ñaaw amna lo xamné jaay ne jaayi papier warutul kii nañu respectante uh-huh. man du man ci du ma joueur uh-huh. parce que buma don wax yu bari mais kon amna joueur yoo xam dañuy gas dugg ci souf uh-huh. déggul mu la ma koy waxat bu mu dégg sénégalais agent joueur bu xam lo xamné ci Thierno def nako nako sunu na wax je le donne ma la jox autorisation man kenn mënul wax parce que man dama nakhari deret

ma am lekk loo xam man bu naa jàkkaarloo suma yaay wala suma doom. Mm-hmm. parce que ma waaye doom mag lañu. lo na loo xam nit ki da koy da koy jiital. lek lu lew en tout cas. Mm-hmm. je pense que leer benen euh, beneen épisode bi mom moy euh, euh, Sadio Mané et Génération Foot parce qu'on a vu ces temps-ci Madi Touré le président bo xam yow aussi xamante ngeen bu baax. Mm-hmm. def na benn sortie di expliquer comme quoi que Sadio n'a n'a pas fait grand-chose pour Génération Foot mom aussi mu génn ne waaw je vais pas répondre et tout Madi c'est mon père ñoom ñaar est-ce que gisoo ne dañu war arrondir les angles. Sadio Madi Touré n'a jamais dit Sadio deful dara. Ah. il faut faire attention. ben ko chaque fois qu'on lui a posé la question ku génnee fu fa fu sa Madi Touré waxé na Sadio deful dara na ma ko génnee. Mhm. mais nak les gens des fois ñoy dañu bëgg lire sa xalaat. Mhm. Madi dafa ne saa yoo ko posé question qu'est-ce que Sadio Mané a fait mu ne leen laaj leen ko. <laughs> ku génnee ku Madi Madi taxawee né Sadio Mané dafa ma na ko pour ñu laaj Sadio Mané ce qu'il a fait pour génération. loolu la moom laa lay wax ni ça parce que c'est une question qui revient oui qu'est-ce que Sadio Mané parce que les gens ont bien savoir. Mm. en retour qu'est-ce que Sadio Mané est-ce que ça m'a dit néna dama leen ngeen laaj. Mm. Madi dit toujours ça laaj leen Sadio Mané qu'est-ce qu'il a fait. Mm-hmm. xam nga laaj leen Sadio Mané qu'est-ce qu'il a fait. est ça ne veut pas dire que deful dara wala def na. il le refourgue le bébé. Mm-hmm. mais les gens en déduisent Moi, li ma la wax rek. il faut qu'on arrête de faire des raccourcis. Mm-hmm. moi je suis pas en train de défendre Madi. moi je vais te dire une chose. man man maa li may wax ni am na ñu naan mooy qui sont oculaires. Uh-huh. man maa njëkk a taxaw bañ nit ñi di fooyee benn ping pong maa di turé kii parce que am waruñu am di waruñu am divergence. Uh-huh. papa ak doom la. Uh-huh. dara dul dara. tey bari na maa ngi gis ci net bi gars yi bari di di di ŋaang rek wax di wax di wax rek na man la man la man la man la man maa defal li Sadio Mané man maa wax yëpp fii la ñu fekk ñun fii la ñu fekk man Sadio Mané ñun moo koy xam bi ma ko maa di njëkk présenté benn fii mu nekk lu tuuti mu may tooñ maa di ne ma Thierno ma jox la sa futur Drogba mu ngi taxaw ci biisu mu nekk lu tuuti ma ñëw tàpp ko mu ne ma sa mbokk soose la ma ma ne ko ah, ma koy lakk soose ñu kaf di reetaan ma ñëw lakk ko soose ñu kaf reetaan ma ko bon allez bon am ko xam nga xam nga maa di ne mu dugg nekk lu tuuti dugg ci biis bi Kalau la ko ñu gis bu bima koy gissat way bima may ma di ne ma kii ma gore ma ma signé contrat boobu la ñu njëkk c'est la deuxième fois ñu tok bëgg cheminement bi ñu def donc mëno mëno juger nit ki man da la wax man la man lu baax la xam ci mo waaw parce que li def limuy def ku ko gisul bu ko dekkal fenn da nga bon rek parce que li dëkkam parce que def ni bari ñu ko def hmm. limuy def man parce que man bu nekkona man tamit noo ci lokay di ci drogue ba limuy hôpital mëno ko tabax ñaata hmm. école eh, eh, la tabax ñaata hmm. orphelinat la dundal. ñaata réalisation la mom musu ko def man ma daan def lepp man ma ma créer fondation Didier man maa ko créé de toute pièce. def lepp mu jox ma carte blanche. khalis bi daan jël les sponsors Pepsi Cola Samsung yepp yëpp fa man ma defal lepp ba am xol ba ma paré Pitus maa ngi ni ba tay ba mu paré ba mu arrêté ma delloo ko lengee nak ko nag léegi da ngay apprendre à gérer toi-même. je suis toujours là.

jour jour cérémonie bi bi Sadio yëkkatee trophée pour man bu gërëmee ndeyam ak bàyyam après nit ki dafa waroon gërëm Madi Touré. Mhm. parce qu'il était dans la salle. mais réellement est-ce qu'il y a un problème. entre Sadio non wax la man lolu man dama ko ñaawul gis nga keroog. Mhm. wallahi laazim man Samuel Eto'o. Mhm. am na ñeneen ak ñeneen. quand quand ils ont su ça que Madi nga fa boy, Madi mo koy former tout ça. ay ñeneen ak ñeneen ay dirigeants ñu mais pourquoi quel est le problème les gens m'ont interpellé quel est le problème entre Madi Touré à qui demandé demandé comment de mais pour moi ça a été une erreur. Mhm. après j'ai eu des explications. qui mhm. peuvent être des explications plausibles. Mhm. mais vraiment, par exemple ça marque tous les gens pour moi pourtant, temps la salle du ko pas des dégg C'est ton président nous nous mu demee jaar euh, remercie là. à défaut même de pression sur la scène du présent. je te dédie ce trophée-là. symboliquement il doon le refaire. Le la parce que c'est la mais bien sûr parce que. Faut waxee Sadio Mané dans la génération foot. Mhm. c'était symboliquement c'était fort. Mhm. mais xëy a omission xam nga xel mën na fàtt. Mhm. omission donc ça c'est des petits trucs Il ne il faut pas que nous cultiver genre divergence boobu entre nous. papa la la preuve Sadio a très bien répondu Il dit man maa di du ma polymère, ça ma polyméro sama papa. sama pas pour man wax ji Il faut le foofu la débat mais wax ji ça na Sadio pour man la réponse a été grande mais. si jamais Madi Touré n'a attaqué. ou bien dire que Sadio Mané dafa c'est ce que je wax. par contre amna droit ne ko boobu la nga may laaj lan la ma defal lan la ma defal laaj len ko lu ñu defal mom mhm. allez lui demander amna droit ko. absolument mais nit ñi def ko interprétation indi ko fii c'est pas beau. ce mhm. Sénégal il faut qu'on arrête ça. Mhm. vouloir opposer les gens. moi j'ai la chance man maay koo xam ne fépp laay dugg. bu mo waxe Babacar Ndiaye bu Tëngéej. ñooy ñoy añandoo bëss bu ne. Mbaye Diouf Dia sama grand mais man ñëpp laay wax. Saër tout le monde Seck c'est mon grand frère ñëpp xam nañ ko. m'a di c'est mon ami bobu tan dara amul.

lan dara warul tax aujourd'hui Sadio Mané Madina amul lu ko war a tax. parce que kii muy def carrière am kii mu ngi académie tey que Sadio Mané c' le fleuron de génération quoi.

aussi bien première décision bi mhm. qu'aussi bien bu ça veut dire quoi ça veut dire que par A plus B la décision de jël dina la contester. Mhm. décision boo ci mënut a jël la preuve ñu contesté woon nañu play down play off mhm. léegi ñu contesté arrêt enfin euh, l'Ichitopio. ça veut dire quoi à un moment donné il faut que euh, la raison revienne euh, je ne suis pas ni pro fédération ni anti fédération man awma problème dégguma la man je suis le, football local je suis ça de loin. parce mhm. que c'est les joueurs qui m'intéressent les dirigeants les qui ay divergence pour des intérêts qui kooku sama ndaw mhm. mais mënul su mënul woon une décision pour euh, bu adhérer ñëpp. Mhm. dès le début les off play down am na am na yoo ils ont dit pas ça me va. am na yoo xam ne léegi léegi ñu gindi bi kii ne non non non donc forcément day am ay divergence mhm. maintenant la raison doit revenir pour tout le monde parce que nañ toog wax. Mhm. man suma xalaat bu gàtt. Mhm. c'est vrai que on est quand moitié moitié à la moitié de la saison mais pour maintenant. Ah, euh, mënoon nañu bañ a yegg fii sama xalaat ah je suis pas un expert du ma ci mais sama bu doon man la wax suma xalaat. dès le début dès la l'apparition de la pandémie bi ñu gisee ne affaire baa ngi commencé jël yenn ampleur. foofu la décision yi di jógee non dès le début en l'état actuel on arrête le championnat. Uh-huh. on arrête le championnat parce que de temps de fois, à un moment ni uh-huh. tout le monde savait que affaire parce que les gens se sont pas relâchés. Mhm. mais pour ce boobu temps moment boobu nga waroon a parce que les autres pays l'ont fait. Mhm. pays mhm. on est quand même pas plus expert que les autres. nous sommes jëndee du ñu kii. ñun ñëpp kii pays yu ñu taxoon yu ñu dañ mais il faut arrêter. à un moment donné il faut pas engager les a jaay affaire Nous, jëndee. bu ñu ko defoon moment L'opinion et par tous les dirigeants seraient plus enclins à accepter. on arrête le championnat. en blanche. comme nous, ñu ko defee ñu année blanche. ou bien on dit on arrête, on arrête, le championnat en l'état actuel. C'est une situation exceptionnelle. Mhm. Il y aura une décision, c'est des mesures exceptionnelles. Mhm. En l'état actuel, comme on a joué la moitié du championnat, Tengue, champion, champion. il Faut faire le polémique binaire. Faut faire le... Non mais pour moi là, mhm. aujourd'hui, je le dis aux gens, pour aujourd'hui la décision, pour être honnête. ma euh, parce que c'est un combat de principe. Uh-huh. Même si c'est une année exceptionnelle, à part du moment où il y a une exception, uh-huh. uh-huh. Il a fait quand même la moitié du championnat. Il caracolait la tête avec 12 points. Donc, tout le monde football. le football. football du science exacte mais football kenn du ne c'est injuste. Mhm. parce que dañu jël ñaari équipe ñuy représenter Sénégal ci compétition africaine. non mais bon, nous woon Tëngéej à l'état actuel avons arrêté championnat vu la suite des on décide d'arrêter le championnat comme en caractère comme il y a en caractère extérieur on arrête le championnat Tëngéej champion du Sénégal Jaraaf qui est du deuxième coupe de qui waaye mhm. ma et puis pourquoi ngay jéem a jaay fu jinne mhm. jël kii nga ne jël Tëngéej championnat mu jëm foofu. deuxième bi Amara Traoré li muy def aussi. Amnesty ci droit il il mhm. défend ses il y a des autres clubs en France t'as vu comment Lyon a s'est battu. Mhm. mais dire que oui tu vas tu tu pas il n'y a pas de champion. c'est une année blanche. Mhm. c'est une année blanche. il n'y a pas de champion. il n'y a pas de titre a pas de mais. contre kay bu donc il n'y a pas non mais comme amul titre mais Dieu génération générations mu dem. c'était le dernier champion. Ouais. mais xam nga aussi jël génération générations du pour moi, des fois dañuy compliquer compliquées, xam ça peut ça peut qui. pour moi il y a des, Sénégal, il y a des gens, intelligents, je pense, football, nous sommes responsables. Mais des fois, euh, mhm. pour moi, aujourd'hui, logique pour logique, tu dis que c'est l'autre, on arrête le championnat. Ah, au moment où on l'arrête, cette équipe-là était devant mhm. les champions du Sénégal. Mhm. Vraiment, d'autres en polémique. La deuxième division, ou y solution des solutions nekkoon ou on est ok. Mhm. exception Moi tax man mhm. l'exception. avec y exception. que deux on va jouer à 16. on va jouer à 16. on joue à 16 le problème il était réglé. Mhm. on dit l'année prochaine au lieu de deux il y a xaw matchs, sax. deux deux y quatre matchs. pourquoi quatre matchs parce que c'est l'exception qui qui qui le problème il était réglé on arrivera toujours à trouver un planning des fois. man on l'a lan lañ ci honnêtement la solution pourrait être très simple. on arrête le championnat tac tac tac mais l'année prochaine. Mhm. par rapport à cette exception l'année prochaine 4 mois, euh, euh, comment ça s'appelle L'Inger, euh, un mhm. deuxième billet. Mhm. ainsi de suite. Benen bi le syndicat des des footballeurs. union des footballeurs professionnels du Sénégal gis samedi passé joueurs yi def syndicat pour commencer à faire ses droit parce que leurs conditions de travail ici au Sénégal c'est très compliqué. Mais c'est bien. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Mhm. Il n'est jamais trop tard de bien faire, mais lolo. Mais en Europe, tout le monde est syndiqué, les joueurs. Mhm. Et, c'est encore heureux qu'ils soient syndiqués. Mhm. En Europe, tous les jours sont assurés. Tu as l'assurance personnelle, blessure, tu as l'assurance perte de licence. Moussafa Diallo, à, Nîmes. Si je ne fais pas cette assurance perte de licence Le professionnel. mais ben, il perd avec sa blessure. bien sûr, mm. parce qu'il a arrêté sa carrière. Mm-hmm. dañuy wax rek ñun professionnel C'est vrai que le contexte n'est pas le même. Mm-hmm. mais il y a début en tout ñu teg affaire da nga koy teg. Mm-hmm. ay fan ay tech. ngay teg. jéego ndànk-ndànk ñu ngi syndiqué après ça xëy na syndicat nga xam day les joueurs après il faut exiger tous les joueurs. am Assurance, assurance. blessure parce que sinon là actuellement on est professionnel mais bon il y a ñan blessure. Le président il génne xaalis ci poche. il faj seen bopp. wala ñooy faj non bopp Le président moo lay jox wala président bi. je connais je connais les, difficultés qu'ont les présidents ñooy génne seen xaalis. Mhm. pourquoi ne pas assurer bon j'aurai am assurance. Mhm. def la charte du football pro du footballeur professionnel. Mhm. cette charte là avec des des garde-fous. da le SMIC technique. je crois que c'est a sax stagiaire lii la mhm. je crois que aussi yooyu am na mais yooyu c'est bien mhm. parce que je crois que ça existe mhm. mais il faudra je pense defal benn toilettage pour ndaw jéem ko def ak li nga xam ne mooy moo méngool doole nag yemuñu les moyens financiers xaalis bariwul tout ça mais dañ ko def loolu parce que da ngay taxaw tey euh, euh, fii fii am na président clé yoo xam dañuy am jour du ñu c'est vrai ak ah, vous na ay jours salaire. mais déggoo la normalement vous avez taxi. taxes mhm. professionnel deux mois à bu la neexee contrat. pour bu la nga contrat. te mhm. club joue là, deux mois taxi Le mhm. club bu si le de la FIFA bu le club deux mois jour jour bi dem ko sauf que. dara non non non. Dans dara du ko ci mais da ngay gis fii dañuy le jour jours, mais mon professionnel laa wax mais booy bu ñu amoon ay ñoo xamné ay genre des gens comme ce syndicat là qui vient de en place mhm. bo ñëwee itam nga dem plaider, nga dem euh, plaider ce cas ci ñooñu mhm. ñooñu ñoo jël combat bi mané ko mhm. parce que sinon les jours sont livrés à lui-même au, au, au, oui au nom du président ya bëri na fii ana quatre-vingt des jours fille, Sénégal fa ay cas sociaux absolument elle soutien des familles mais bien sûr si pandémie bi moo la la réalité. Ben, du football sénégalais. mais voilà. Moi, mhm. damay gis ay cas yoo xam ne da nga leen yërëm. Mhm. ñu naan la fois fooy ñu naan ay cas Je même si ça ça à la décharge c'est les clubs. Moi, mhm. dans mon tax le Sénégal dañu war a yu bari. a la répartition. parce que aujourd'hui euh, le nombre de clubs affiliés dafa bari. y a 300 clubs man ta dans ci pays du Sénégal. ni Sénégal nañu waxante dëgg des clubs euh, des clubs récépissés yooyu ñu ñu war a njëkk qui ne mhm. compétissent pas qui sont là que dañu yor seen que mhm. que qu'on voit que le jour des élections du compétir dañuy négocier sama sama carte mais loolu baaxul pourquoi loolu si frein wu football Sénégal bien sûr que loolu bokk na ci mhm. frein kii am na yoo xam ne vraiment rafetul sax dafa rafetul trois cent clubs mënul nek mais 300 clubs bon ñi nga xam ne club ñi nga xam ne ñoo en activité soo génnee man bi bugg leen ko séddale mais am na ñoo donc dañuy tok rek nga jox leen dugal seen poche. ñu seen poche c'est vrai. alors que ñi ko soxla xaalis boobu ñuy xaaj di ko xaajale dañ leen ko jox ñi nga xam ne dañuy dundal football bi. Mhm. mais ay club yoo xam 300 clubs. Mhm. Sénégal 300 clubs. pour un petit pays comme le Sénégal. non 300 clubs foo ko jëmee. et qui ne compétissent pas, qui ne sont pas actifs, mais qui n'attendent que les subventions mhm. ou bien le jour des élections pour apparaître. Mais ce n'est pas normal. Ce C'est pas normal je crois que amna solo lol donc ben peut-être meun nañu terminer avec euh, le jeune Moussa Wagé nak nga gissé peut-être sa carrière mu dem FC Barcelone même su féké do agent mais dem na FC Barcelone actuellement euh, ñu koy tuddu Turquie ak yene club est-ce que des fois joueur dina jël choix bo xamné ne dina ko top des années après. Moussa Wagé moi bu me xam-xam Moussa Wagé c'était avec les U20 mu xalé bu ndaw. Mhm à la Coupe d'Afrique U20 et a mon ma C'est un C'est ce garçon va être un, des leaders dans les années à venir. Ça mhm. s'est pas arrêté. Mhm. il a gravé les échelons très rapidement il a fait deux coupes il a fait deux du monde U20. avec les la Coupe d'Afrique ok. il est mhm. parti en équipe pour moi c'était une progression parce que c'est un talent. sauf que ce garçon aujourd'hui euh, moi je vous ai dit le euh, club la femme c'est prestige là agent bu ci neex mu neex da ngay bëgg a dem ngande club ànd ak sa benn boy joueur nga yóbbu ko. Mhm. ñu ne la diw signé na nga nekk ci photo bi yow di Barcelone c' est vrai que ça fait ça fait rêver. Mhm. mais Moussa Wagué euh, il a du talent. Mhm. mais pour moi aller tout de suite aller à Barcelone. tout le monde moi j'avais tout de suite dit que c' était pas c' était pas. c' était pas un bon choix ouais ouais. c' était pas un bon choix. dafa teel. parce que club yooyu boo fay dem dafa am benn affaire bo xamné ñun amaguñ ko. parce que Moussa il est sorti de Belgique dans son cancan. Mhm. familial Belgique. cash open cash open. Mhm. peut-être xam nga open de Barça ouais après la coupe du monde. te boo demee te boo demee Barcelone au départ il était avec les boys après ci lañ ko yëgal. ñaata mhm. match la def te tey Moussa dafa war a ne euh, Nice jouer, malheureusement. Parce que si ce n'était pas Covid, B, mhm. il avait commencé à prendre ses marques, Mais tu vois, il est parti. Mhm. Malheureusement, euh, Covid, il y a. Y a on a un tremplin avant d'aller au Sébastien. Pour moi, il était tellement logique. Bon, j'ai open. J'ai un club. J'ai un club français. J'ai mhm. un club qui, comme par exemple, bon, j'ai open, voilà, comme Bruges. Anderlecht, ça c'est des clubs qui ont gagné en France. Quand tu fait deux, ans encore. Mais Moussa Wagé, pour Jaron, qui Mais Aujourd'hui, pour moi,

Vous jouez ni rek. Mhm. club absolument mhm. après comme je dis je ne suis pas maître de de son dessin. Mhm. Ah, c'est un garçon dafa est poli très attentif et sérieux. c'est un garçon xam nga dafa joueur xam sérieux. xam sérieux c'est un garçon sérieux qui en veut. je pense qu'il a une bonne structure familiale. Après, le reste appartiendra à ses conseillers. En tout cas, j'espère qu'ils feront le meilleur choix pour l'intérêt du football sénégalais. Parce qu'on a besoin de ce garçon-là. Ce n'est pas un talent qui doit <laughs> partir en partir absolument fi ñu terminé mooy euh, tey jii nii boo ñuy wax li nga xamante ne nii moom moo la gën a neex ci sa carrière en tant que agent de joueur ak li la ci gën a naqar yi mais li la gën a neex dafay dugg ci li la gën a marqué. li ma gën a neex si sama carrière agent yaa ngi ma retraité gu ma ah. retraité mais li nga xamante ne nii actuellement vraiment si si carrière si si carrière bi neex na la trop nga dund ko. si euh, carrière li ma neex mooy euh, dam laa

j'ai eu la chance dans ma vie de croiser encore une fois, on reviendra à, qui, mm-hmm. qui, à un moment a été une de mes plus belles rencontres mm-hmm. dans ma vie. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, les lépp lépp aussi là. Amé chance structure familiale j'ai une femme qui a tout de suite compris que c'est jë yow kenn. parce que dans dem di matin midi soir foo xamoo da ngay xëy la matin xamoo ndax da ngay ñibbisi mhm. mais moom mu dëkk loolu yëpp mhm. toog sama wet mhm. di yar xale yi dina assister comme je dis vraiment yooyu da ngay xam ne chance la chance la moo tax man yo-yo, yëpp dafay tax ma ne aujourd'hui sant yàlla rek ma war tu vois pas et puis en plus après derrière il y a l'avènement de DJ où, où je pars de nulle part avec un garçon qui qui me connaissait pas je partais de nulle part que je vais contacter

non dañu nité manam un footballeur tey jii nii war di reconnaissant. ah oui. ci ñi nga xamanteni ñi ñom ñoleen dimbali. waaw mais moom la wax ni mais malheureusement bu sotti rek am borom. Mhm. lu sotti rek am borom mais dimbal bi dafay commencé sax waxumaan sax ci agent bi nga koy yobbu mhm. mais ci ñi la former ci suuf. ñi la former ba ci taw déjà il faut nga leen ni bàyyi xel. Mhm. parce que ñoo ñu ils ont cru en toi. bi bu dem nga xam dara amul bobu tax amoo ay plastique ay baaba gàlle ngay sol wala ay hmm ñoo ñu tay fu loy def.

na ne yalla natul mhm. loxo mhm. normalement parce que man sama bëgg-bëgg bari mhm. donc kenn duma ki yalla rek xam de mu mais man bo Je dal problème le lendemain bor toujours nit ki nit reconnaissance humilité On on toujours joué, reconnaissance reconnaissance parce que dafa football y a des gens génération deux tout

devant pratiquement dans tous les palais africains. J'ai eu la chance d'être aussi par pratiquement chef d'État yu nekk. xam nga moom mooy. lu man de Didier Drogba moom. Didier Drogba. fu ñuy dem dafa mel ni. c' est important ça. tey damay ñu yóbbu na ma nga xam ne ñooñu newtuñ sax ci nguur am na yoo xam ne dañuy am da ngay jokkoo ñoom. la la la dafa am prix. am na solo am na solo tey jii nii lan lan lan ngay tàggatoo. Eh, li may di di ñaan Sénégal mbas mi ci àdduna bi yàlla fanqal ñu ko parce que vraiment diis na trop uh-huh. diis na trop diis na trop ci Sénégal asamaak ci man uh-huh. parce que ki ki mbas mi yóbbu dafa dafa taxoon ci man uh-huh. bon ba tax defar ñu ma toog ñu ne ma tu es un traumatisé ma ne oui je suis un traumatisé par cette maladie ma way man dama ko dama traumatisé donc ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi ñaan yàlla nit ñi ñu jéem a appliquer les mesures que les gouvernant gouvernants nous gel yaa ngi fi ñu ngi koy téye ñu tabaski baa di ci nit ñaa ngi dem ci marché bi damay ñaan yàlla nit ñi bàyyi xel ne bu doon feebar yow kese la daal kenn kenn mun nga ko gérer mais yow mun nga ko am loolu askan bi yëpp mm-hmm. sa kër nga loolu mm-hmm. loolu jar jar ko fi war na nit ñi war delloo si seen xel tey déglu parce que aar sa bopp mooy aar sa ndey sa doom mm-hmm. sa rakk sa jarbaat ci kër moom laa doon bu doon kii yow kese la rek après yaa yaa sa responsabilité bopp la

xam loolu le fait que vendredi bu xam bu maa dem xaral. dafa diis ci ma mais. waaw mais comme dañ ñu ne dañ toog rek. suñu kilifa la. xaalis bi ñu leen doon ñu toog rek ñu doon lañu ko doon. mais ku ku mun a tamit julli rek dama julli te ñuy mm-hmm. ah, bu ñu bu ñu ñaanee yàlla ñu jóge fi. Mm-hmm. ñu ngi dem ci jàkki di dem xarala ñi di dem saafonte di kootante di julli jumaa vraiment a di ñaanal a jàmm di Sénégal am jàmm c'est important mhm. xam nga su ma égoïste woon man maa ngi fële toog mhm. yore sa Europe sama teranga mhm. mais lu ma am teranga teranga Europe di xalaat Sénégal fi ah, laa dëkk lu ma am teranga parce que man France moom man la jox mm-hmm. teranga yëpp teranga France laa ko amee mm-hmm. mais damooy am lu ma am yëpp fii laa ko nga indiwaat ko sa may ñu jàmm amiin yàlla booy footballeur yi mm-hmm. yàlla may leen carrière bu rafet waaw bu ko yàlla may leen jàmm may leen réussite nga xam ne